dikkati naa dëkk ci dëkk bi jàngee ci dëkk bi employé ay nit ci dëkk bi lii la tribune yéen a kaay xëyee ak Bougane Gueye Dany naan kon le bon élève du peuple yéen a kaay des médias bi daal di xëyee tey conférence publique ba nga xam ne moom njiital gëm sa bopp moom la xëyee ak askanu senegal ni ki démb l'évidence yéen a kaay na njiital gëm sa bopp ni ki démb bàyyiwul dara l'info yéen a kaay na ma fornay ma tekki bantam démb buntu pale nag daal ko fay taal moom Bougane gay Dany critique yéen a kaay ne ma Bougane Gueye Dany kay dafa yàq yàqeer nguur gi vox populi ne ma ni ki démb moom Bougane Bougane Gueye Dany amul lu mu leen desalul daal di xam le ni nag candidat la ci élection présidentielle yi naan leen benn opposition moo am Sénégal gawma loolu naku ne ngeen bu dem ca làmb ja askanu Sénégal tabb ka leen saf ndax nag fii ci réew mi Gueye naan aw ma fi problème ak kenn ku ci nekk sa orientation ak fa nga bëgg dem man it damaa topp sama yos te la ma gëm dëgg-dëgg te di ko jëfee mooy saa si tembe fii réew mi toll moom président ki Sall mënatuñoo jiite l'indépendant yéen kaay ne na kaas yi direct news mel ni ku naan man moo yay de kontam yi nga xam ne nee woon na dañu koo débloqué ba nii bugaan ma nga naan kenn laalu ko ba tey dañu koo bloqué Walf Quotidien ne ma moo taxit ni ki démb li nekkoon ci tënam génnee na ko njiital gëm sa bopp naan la ma leen mën a wax mooy compte des médias yi ba tey dañ koo bloqué 24 heures yéen a kaay ne ma ni ki démb moom bugaan gay dani day nee na président Macky Sall mënu fee am ñetteel bi mandat na leer te bés bu ko jéemee Ismaïla Madior Fall ak moom président Macky Sall ci boppam dañu leen war a yóbbu haute cour de justice àtte leen ndax nag haute trahison la ñu def leen wor ma ñëwal ci man ndax ma ngi fay xamle naan bu nu bàyyee Macky Sall mu daal di yóotu ay adversaire am catastrophe ci boppam dina am ci réew mi le témoin yéene kaay ne dafa mel ni moo nar a am de ndax Aminata ci boppam ña ko nar a xañ nag présidentielle ya l'observateur ne fu nu jëm ak gii nguur nguur goo xam ne saa su nekk nag ma ngay génneel arme ñi nga xam ne war nañu janoo ak moom ci xeex yi te lépp nag IGE la ñuy jox ngànnaay mu xeex leen fàttaliku leen Idrissa Seck fàttaliku leen Khalifa Babacar Sall tey nag Mimi Touré ci boppam boo moytuwul moom la ñuy fàdd ay tànkam fa yàllaaw ba du egg ci présidentielle ya gaay naan mbir yi mbir yu doy waar la mbir yu bon yu salte yoo xam ne ña ngi koy def ay adversaire politique le quotidien le quotidien ne moom lañ koy jiiñ nee na defu ko tey defu ko ëllëg te nag dafa bëgg ab confrontation publique diggante moom na mu yoree Idrissa sekk na mu yoree ak Aminata Tall na mu yore woon tribune yéen a kaay ne delsil ci man bugaa na nga naan buñ bàyyee Macky Sall mu tabb ay adversaire am lambaay ñaaw buñ ko bàyyee mu am troisième mandat dina soppi constitution bi doon buur di bu mi dootul jugati justice bi ndax coow li coow li mooy moom président Macky Sall dub gentleman amul it élégance politique bugaan naan leen gëm sa bopp def nay preuve am ci langu politique gi xool leen ndax ci élection yi ñu génn bar na ci gox yoo xam ne ba ci ndakaaru ñoo jël ñetteel bi place ci coowal suite boti la bugaan naan daj dëpp gaa ngi masumaa gis aji saar xawma aji saar masumaa déggoo ak moom masumaa jox ak moom loxo masuma koo fekk fu mu nekk xawma aji saar te la ma ca naqar lu dong moom moo di ab soxna la ñu jàpp nag di ko tuñ tuñal muy ci bii boor di bee boor di ko xas di ko ŋàññi leen man am na sëriñ boo xam ne nee na daf ma caa moo ne day dafa zappe ka nga xam ne moo jiitoon ca liste te kookee di baayam tribune yéen kaay ma bul sori ci coowal suite botili ndax nag coow la mooy am na kun ca tuddoon ba tey kenn auditionné wu ko mu di maître Dior Diagne coow li coow li yéen kaay bi moom moo di ña nekk ci coow lépp auditionné nañ leen ba ci Mamour Diallo ci boppam auditionné nañ ko lan moo tax nag kenn auditionné wul maître Dior Diagne ndax nag dafa taxewul ci mbir mi moo tax kenn woowu ko ban rôle la ci maître Dior Diagne doon joué ba ñu tudd ko ndax gi joor lañ ko tudd ci coow li bari na lool te kat joor ma ngay taxaw di leen défier de naan leen masumaa gis Ndeye Khady Ndiaye ma gis Sidi Ahmed Mbaye musumaa gis docteur Gaye musumaa gis capitaine Touré terewul ay avocat Ousmane Sonko ña ngay sàkk mu jaanoog doyen de juges te réquisition ci téléphone ba nga xam ne sàkk woon nañ ko daal dinay wane ni nag joor xamu leen moo ne day ña nga naan fukki fan ak juróom joor dalal na ko aji ci këram te loolee aji saar moo ko weddil boppam kanamu doyen des juges ne ko xaw ma xaw ma li mooy réagirul kenn woowu ko te it la ñu saytu ci moom tax ci lan moo ko ci bëgg a taxal laaj daal dinay samp la am te des daal mooy gaayaa ngeeg suñuy milliards di ko tuñtuñal l'exclusive yéene kaay na ma coowal juróom ñeen fukki milliards yeeg ñeent ubbeekooti na ñu ubbi ab information judiciaire of nag ci boppam di wër Tahirou Sarr enquête ba daal di njort ne ab association de malfaiteurs moo ca nekk libération yéene kaay na ma ca Bambilor it projet cent mille logements bu Sicap ba amoon mbay de ñeenti milliards bu teg ñaari téeméeri millions ba ñu génnee ca handicap ba kenn musu koo moo tax borom suuf sa nanguwaat na seeni suuf xaalis ba ñu daal di koy séddoo te ba tey ña ko séddoo kenn jàpp leen suuf su aane ma boobu gaa yaa ngay wër ñetteel bi mandat ngir président Macky Sall ay soxna ak gaawu gii daañu daje ci seenu biir te grand théâtre ngir weñ loxo ne ñu sàll ngaari lam tooro buur géde mu wut ñetteel bi mandat Thérèse Faye Diouf moo leen jiite ñoom soxna yooyee maire bu jare coow la moom moo di la ñuy def kàddu président Macky Sall mi ne woon du def lu ëpp ñaari mandat nu ñuy def constitution ba ko ko aayee Sud ma loo ci manti dégg démocratie ci boppam moo deltu ginnaaw ci réewum Sénégal dund gi metti lool waxtu woowu ña ngay caxat-caxatee sunu ay moomeel yeewi askan wi ne day dakk de aljuma ji ci kàttanu borom bi daañu yëngal réew mi wan président ma Macky Sall ne ko moomooñu détenu politique yi nga jàpp nga bàyyi leen l'indépendant yéen kaay na ma njëkkee ko ci papa alaña ndax gaawu gii waa kab buntu hôpital principal la ñuy amalee manifester rax ci dolli mbootaayu xeet yi ma ngay sàkku ñu bàyyi ko direct news ne ma bind nag bataaxal de di xam le ni dossier bi dootu ci waxat yi terewul papa ale ba tey ma nga ca kaso ba lu mu dugal ci demande ñu daal di koy rejeté critique yéene kaane ma en tout cas aljuma ji ñu jëm aljuma karbala lay doon de ndax gars yi Ousmane nee ñu du ñu bàyyi tey du ñu bàyyi ëllëg xeex ak gouvernement gi ci boppam la ñu fas yéene ngir ñu xam ne moomuñu Sénégal moom Ousmane Sonko di quotidien le di ne ma ay étudiant ca Casamance ñu ngi koy tëggal bool Dakar Times ne ma gannaaw étudiant yi Jakarta man yeeg commerçant ci boppam fas yéene ñu fipp foofee ca Sigicoor l'enquête quotidien ne ma xanaa réew mi dafa dëgg liggéeyu jàmbur diggante Alioune Ndoye ak Barthélemy Diaz ma ngay bëx-bëxi las yéene kaay ne ma Alioune Ndoye dee ngay tuumaal Barthélemy Diaz l'info yéene kaay ne ma moom Alioune Ndoye nee na Barthélemy Diaz jël budget ba di ca ko saf las mel ni ku man booba waa yeewi askan mi taluñu lenn lu dul tuñ tuñal ak dal ci kaw régime président Macky Sall bii libération yéene kaay ne ma Ousmane Sonko ma nga naan coow li mooy confrontation suñu digg ak président Macky mënta ñàkk de suñu ko deful daal di sànku fa yàllaaxu Khalifa Babacar Sall naan askanuk réewum Sénégal nañu génn wuy suñu suñu ko deful ca Cheikh Tidiane yum naan ñaari nit bu ñuy xeex te kenn ki ëpp doole moroomam ku àttewul dangaa sot neutre yi laay waxal tribune sport moom xëy samp laaj combat Ama Baldé ak Gris Bordeaux mbaadu dañu ko annulé sunu lamb ne dàq nañ ko de ndax Ama Baldé ci boppam dafa wut certificat médical xam ne dafa am gaañu gaañu ci tànk tribune yéene kaay ne ko balaa ngay daaneel coow la am ca Njande Fall soxna si nga xam ne tëye nañ ko ba tey mi ngi ci gardaaw yi yéene kaay bi dee média bi ma tey ma wax la ci lu dul deñ moom soxna si boppam mës naa lakk kenn ci ñaari xale yi tey dafa doon menacé maam jëleen yoro yoroon wax ji wax ji mooy ba nii neewul moo faat waaye enquêteurs yi am na nañ yaqin ne moo def ñaawteef gii las yéene kaay ma coow laa nga ca tàmbaade ndax Fanta Touré mii dafa yekk reer wujjam ak borom këram di reer borom kër ga xam ne am na luy ñagas ci gémmiñam ndeke yoo Fanta dafa dëbb butéel ba mu mokk def ko ci reer bi coow la coow la mooy soxna sa si boppam ndekete dafa wandoon lor ña ngi ko jëmee boo moyul ca chambre criminelle ya ndax dafa bëggoon faat ñetti bakkan coow la nag moom moo di moom Fanta ci boppam ñaareel la ñu xataraayu ndànk te yendoog jàmm